dalli nag jàmm ci xibaar yu a fës ci bis bi moom jiital mouvement gëm sa bopp daal nay fanaan guddeem gu njëkk ca kaso moom Bougane Gueye Dany nag gannaaw saa bi nga ko tegee loxo samedi bi ñu weesu ci yoonu Bakel demoon seeti ña nga xamante ni ñoom ñoo loru foofee ne ca mbënd mi moom Bougane Gueye Dany nag ci lañ ko jàppee ci yoon bi ne ko ndax fii waroo fee jaar ndax njiitu réew mi dafa am yoon bu nga xamante ni daf ko am foofu te fii lay jaar moom Bougane Gueye Dany nag gannaaw ab werante xëccoo ci lañ ko daal di teewee yóbbu ko foofee ne ca brigade bu gendarmerie waaye itam sax tey jii nii ci altine ji daal foofee ko andi ca tribunal euh, bu grande instance bu Tambacounda. gannaaw sax bi nga xamante ni nag moom Bougane Gueye Dany daal dinañ jàkkaarloog procureur ca kanam avocat am kii di Maître El Hadji Diouf moom Bougane Gueye dogal placé ko sous mandat de dépôt foofee ne euh, ca maison d'arrêt de correction bu Tambacounda nda itam sax jox ko di rege 30 octobre bi ñu jëm ngir atte ca la nga xamante ni loolee lañ koy toppee lu ci mënti am daay itam ba nga xamante ni daal bàkk bi daanu na ñi nga xamante ni ñoom la bokkal coalition di waa sàmm sa kàddu ku ci mel ni Barthélemy Dias ku ci mel ni Thierno Bocoum Pape Djibril Fall ñoom ñëpp daal daanaka foofee la ñu nekkoon di wane li nga xamante ni rek moom moo di seenub nakar jëmale ko ci ni nga xamante ni noonu lañ def Bougane Gueye Dany ndax noom jàpp nañ daal ko kii di Bougane Gueye Dany lenn rek moo ko taxoon jóg moo di dem wàllu ji askan wa nga xamante ni dañoo njëkk ci njàkkare tiis waaye nag ca boobee jamono saa itam démb daal waa Pastef ñoom itam feetu nañ fa dellu taxaw fa nag di yuuxu Sonko Sonko Sonko ba sax ki nga xamante ni moom moo di maire Ndakaaru di Barthélémy Dias waaye itam di tëddali sàmm sa kàddu moom sax daanaka ay wax la mujjee dem bay dagg saaga ne nak nag ku ma waxati Ousmane Sonko daal di jaar fu ñaaw mu mel daal démb itam daal xool yëngu yoon bi ñenn ngi di naqarlu jàpp gi nga xamante ni jàpp nañ ko di Bougane Gueye Dany ca beneen wet ga nag ña nga ñoom ñoo eh, ci pouvoir bi rawatina ndaw Pastef fa leen ret di ñu daal di koy teg loxo te sax loolee mujjee na am lu ci mënti am daal gannaaw ba nga xamante ni am na ñu bëri ci ay gëstukat rawatina saa nga xamante ret moom moo ji avocat wu di Me El daal jàpp

mbir mi la nga leb rek lañ lay fay ndax itam sax gis nañ daal lu gën a garaaw amoon na ko fi am sax ñu naan bi ñuy jàpp Ousmane Sonko yéen ñiy wax ji fan nekkoon kon nag Bougane Gueye Dany daal dina bu nga xam te dina ko toog foofee nekk diwaanu Tambacounda ngir xaar ana ban dogal la yoon di jël ci moom ca boobu jamono nag itam sax ndëmbal ba nga xam te sax yóbboon na ko foofee ñu bëri itam di xalaat naan Bougane Gueye Dany daal moom politique dong moo ko fa yóbboon waaye itam demul woon benn yoon pour daal di dimbali ña nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofee ne ca démb itam ci altine ji Sénégal fës loolu ci wàllum actualité politique ndax itam ki fi nekkoon ilimaanu jëwriñ yi waaye itam sax nekk chef de l'opposition di Amadou Ba moom itam daal nay amal démb ab janook taskatu xabaar jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taskatu xabaar yi ñëwaat bu baax a baax ci yaatal digganteem ak ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko waaye nag moom Amadou Ba ba tey jii daal nee na moom du yëkkati benn kàddu bu ñaaw jëmale ko ci ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo fi nekk moom sax dem bay naa itam formé na daal nga xamante ni jaar nañu foofee ne ca eh, ca impôt domaine ndax moom sax nee na itam kii Sonko daal bokk na nga xamante ne nag moom Ba moom moo leen daal di eh, formé moom sax dem bay naan sax ki nga xamante ni moom Ousmane Sonko bi muy génn eh, foofee ne ci école bu administration moom boobee ne fekk directeur général bu impôt et domaine lu ci mënti am daal moom Amadou Ba ñu bëri daal di ñëwaat itam ci la nga ni moom moo di koppar bi nga xamante ni am na ko nee na lu ci mënti am daal nee na moom gisul benn intérêt daal di jël li nga xamante ni moom moo di alalu réew mi nee na ña nga xamante ni jamono bii ñoom ñoo teg ci bopp nguur gi am nañu capacité ngir xool moom ana lan mooy moomeelam ci li nga xamante ni moom moo di ci réewum Sénégal moom Amadou Ba itam dem bay naan sax ka nga xamante ni daal moom moo di Ousmane Sonko xam na ko bu baax a baax moom itam xam na ko kon nag jaralu ko benn intérêt daal di ay kàddu yu ñaaw ji di ko jëmale ci moom ca wet ga nag sax moom Ousmane Sonko gannaaw ba nga xamante ni nag Ba daal nee ko pare Ousmane Sonko daal di bind ab bataaxal dinaat nag ka nga xamante ni daal moom moo di Amadou Ba li mu bëgg rek moom moo di eh, débat public loole nag dina am bu ko bëggee loole nag mu nekk nag coow la nga xam ne sax daanaka démb eh, altine ci ngoon gi daal ñu bëri commencé nañ koo def waxtaan di ko ndax nag ñu bëri jàpp nañ ko daal Sénégal war na weesu ci politique gu xastante ak itam tamante dëmm li ñu bëgg daal moom moo di génnee xam ku nekk itam daal di défendre la nga xamante ni moom moo di sa xam-xam ak sa gis-gis eh, ci réewum Sénégal bii ni moom Ousmane Sonko daal dina dew ne moom pare na mm, temm ngir jàkkaarloo ak ki nga xamante ni moom moo di Amadou Ba Amadou Ba itam daal ne moom dawul dikkul demul fenn daal te jamono bii fu ko ci wàllum waxtaan ci li xam te ne itam moom moo di wàllum Sénégal dina ci addu yee joxe itam eh, lu ci mën ti am itam daal démb ka nga xamante ni nag daal am na information yi nga xamante ni day mit daal dinay fuité ki génnoo loolu sax moo di taskatu xabaar bii di Thierno Diop dem sax moom Ousmane Sonko ak Déthié Fall daal dina ñuy gisee ne ca primature lu am daal moom mi nga xamante ni daal moom moo Fall daal dinay tontu ci mbir moomee itam daal di ci yey yàbbi lu ci mënti am daal moom Déthié Fall nga xamante nag dañ ko daal di investir cinquième position ci liste bu coalition bi nga xamante ni daal Barthélémy Dias moom moo ko daal di jiite moo di sàmm sa kàddu nag moom Déthié Fall ngir daal di nag daal di wax la nga xamante ni moom moo ji euh, position ci situation politique bu Sénégal daal daal jox jox dégg sénégalais yi àllarba bi di ñëw yi ngir daal di àddu ci la nga xamante ni daal moom moo di situation réew nag ci fàttali gis itam fan yi la ñu wees daal amoon na ay waxtaan yoo xamante ni ñu bëri si lu woon nañ ko diggante ak moom ak Ousmane Sonko daal ñu bëri jàpp ni que amoon na ay xiiroog ngaayoo waaye daal lu ci mën ti am nag jamono bii moom Déthié Fall ñu bëri daal jàpp ni que dem daal la a jege ka toog ànd ak ña nga xamante ni ñoom ñoo di waa coalition bii di sàmm sa kàddu ndax Déthié Fall day fekk ji Ousmane Sonko ànd moom liggéey ndax dañoo waxtaan daal di enterré ans de guerre yi lu ci mënti am daal àllarba xaar leen ko diiru fukki waxtu daal moom moom mi nga xamante ni moom moo Déthié Fall di élève Idriss Seck boobee daal daana wax fan mooy position am jamono bi ndax itam coow li bëri na loolu ci ndoddam moom Macky Sall mi nga xamante ni nag moom moo fi nekkoon njiitam réew te itam sax fas yéene bokku ci élection yi ñu jëm ndax itam moom sax moom moo di tête de liste takku Sénégal moom nag mi nga xamante ni sax moom moo di Macky Sall daal ñu ngi ñuy xamal ni que bépp tournée bu nga xamante ni daf ko waroon amal ca bitim réew rawatina sax itam ba nga xamante ni nag dañ koo invité woon foofee ne ci université bu Columbia ngir waxtaan waxtaanee ci yenn ay ponk ci àdduna bi moom Macky Sall nag ñu ngi ñuy yooyu yëpp nag daf koo daal di annulé attali nag ci weeru novembre bi itam moom Macky Sall waroon na dem itam foofee ne ci Azerbaïdjan daal di euh, saafonte ak ña nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk waaye du ci mën am daal jamono bii daal Macky def mel ni Sénégal dong lay gis Sénégal dong lay xalaat Sénégal dong lay jeneer ñi ko wéykat boo xewoon nag bi ma bàyyi bëli daal lekkatuma naanatuma moom Macky Sall nag dafa mel nag jamono bii Sénégal moom moo ko daal moo tax itam ñibbisiwaat fii ci diwaanu Sénégal ñëwaat battre campagne ana ban façon la campagne boobu nar a nduroowee ndax itam waa Pastef nañ ko bàyyi mu jàll lu ci mënti am daal moom Macky Sall ñu bëri ñu ngi koy xaarandi fii ci diwaanu Sénégal ci fàttali nag fan yi nag moom itam sax mu ngi woo ñenn ci ay responsable itam gis nañu itam ka nga xamante ni moom moo di Abdou Mbow moom Macky Sall moo daal yëkkat téléphone am woo ko ci kanamu responsable yi dem sax ba koy naan képp ku nga xamante ni daal waroon nañ koo seeti waroon nañ koo woo fexe leen daal ba nga gisanteeg ñoom dem sax ba naan mbaa fàttewu leen gone si sigi jot nabi di Abdoulaye Dieye moom itam daal wax leen ko maa koy bàyyi xel bu baax a baax lu ci mën ti am daal fii ci diwaanu Sénégal daal élection yi nar naa neex ca boobee jamono nag ka nga xamante ni nag moom moo fi nekkoon jëwriñ gi ñu dénkoon wàllum commerce fii ci diwaanu Sénégal di Alioune Sarr waaye itam di meeru Notto Diobass moom nag daat ne wone la nga xamante ni moom moo di position am ndax Alioune Sarr nag moom jël na dogal daal di dem ànd ak ña nga xamante ni ñoom ñoo di waa Pastef lim ki teg rek moom moo di Sénégal daal benn nguur musu fee ñëw itam ca bopp nguur ko rek daal di ñàkk la nga xamante ni moom moo di assemblée nationale lu ci mënti am daal man Aliou Sall man ak am ñun ñëpp daal jàpp leen que daañu jàppale coalition Pastef bii nga xamante ni moom Ousmane Sonko moom moo ko daal di jiite ñu bëri itam daal di rafet loolu ndax moom Aliou Sall daal jàpp nañ ni que taxawaayam ci xarañte moom waaye itam sax jàpp nañ que daal moom war na bokk ca nga xamante ni dañ leen di soxla ngir ñu liggéeyal Sénégal ndax nag moom yoroon na fi itam nga xamante ni moom moo di commercial itam def ba nga xamante ni liggéey joxe la nga xamante ni moom moo consigne de vote am ngir képp ku nga xamante ni daal moom nga àndal te waroon dem ca campagne législative yi na xam ne daal joxoñ na président ni moom moo jiite parti Pastef di Ousmane Sonko ngir ñu ànd ak moom yóbbu ko ca pencum ndaw réew ma ki nga xamante ni itam tamit daal dinañ koy teggi loxo te jàppoon ko moom moo di Ahmed Suzanne Camara bàkk ba nag démb ci altine yi daal di daanu moom nag gannaaw sax bi ko daal di jàppee ka nga xamante ni daal moo di juge bu troisième cabinet daal dina koy moom moo di daal di yëkkati ay kàddu daal ko yëkkati ci ka nga xamante ni nag moom moo di njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom nag ci fàttali mois de juillet bi ñu weesu lañ ko daal di placé euh, sous mandat de dépôt waaye nag jamono bii daal bàyyi nañ ko bàyyi ndegandiku di xaare ana fan la wànnent di mujjee ak gëtëm mbokk yi mu noonu bëgg nañ loolu am mbégte kontante ni ngeen di ànd ak ñun saa nekk ci seen revue de presse bi waaye nag du ñu yem foofu dañuy ànd ak yi ndëj ci la nga xamante ni moom moo di euh, seen fait divers préféré ndax nag bis bu nekk nag ñoo leen ko permettre nañ leen nga xamante ngeen ko waxtaan ak ñun mbokk yi nag tey nag xam naa ne nag moodu moodu yi ñoo xewle ñoom nag moom <laughs> xam naa ni dañuy naan réew mi commencé métti ci ñoom ndax waa ji moom nee na yàgg naa tukki nekkoon na fii ci diwaanu Sénégal di taaba taaba ba ni ko yàlla mayee as tuut ba mu mën a am la nga xamante ni daal moom moo di koppar bu ko mën a yóbbu ca Canada mu dem tuki nee na nag fa la ko yàlla jaarale daal ibbi ay buntu wërsëgam nee na moom bi muy dem daanaka benn soxna ret la fi bàyyi woon waaw benn soxna ret lafi fi daal di bàyyi woon ñëw toog fii ci Sénégal soxnaam soosu ngir muñal ko ndax xam nga yenn saay nag booy soog a am sa visa nga tukki xamoo kañ ngay ñëwaat xamoo ba xam yoon dina neex xamoo ba xam di nga àndaale wërsëg loolu lépp nag sa soxna toog di la ko muñal waaye nee na moom sonn na lool nag ca Canada ndax liggéey na fa waaye tamit nag yàlla ibbil na ko buntu wërsëgam ba ba nga xam te daal ñëwaat na fii Sénégal li mu njëkk def moo di tabax kër goo xam ne dañ koy séen maanaam sax mën na ne léegi moom day toog muy dox ndax tabax na immeuble bu nga xam te ne njabootam dëkk nañ ci waaye itam loué na beneen partie bi. nee na nag moom premier ñibbiseem ci Sénégal dafa ñibbisi durant un mois nag boobu neexoon na trop ndax soxnaam si teeru na ko teeru goo xamante ni xam nga ndeysaan det e, toppatoo sa jëkkër jënd ay bagage ak yooyu nee na xam naa ki teeru boobu tombé woon ak jamono seddaay ca la soxnaam si nag daal di jël ndax moom amoon na taa waaye deuxième doom bi soxna si daal di koy ëmb nee nag moom noos gi daal di jeex chaque instant yóbbu hôpital andiwaat. perfusé et cetera et cetera moom daal ci yooyu la nekk yóbbu hôpital andiwaat perfusé jeex na mu ne moom kon comme ko soxnaam si daal ëmb na te am na xaalis il faut mu takk xale bu ndaw boo xamante ni daal kooku dina ko mën a noppal nee na nag moom ndeysaan yàlla dimbali ko mu gis daal ci koñam xale bu nga xamante ni daal yem yem na ci ay loxo tamit moom nopp na gone gi dañu naan nag booy takk da ngay takk koo nopp da ngay takk ku la mat seytaane moom waa ji mu takk benn xale bam te ñoom ñoo bokk koñ ale tamit daal di seet si ci kër gi immeuble bi nee nag moom mu yaakaar comme que moom un mois yooyu mu am daal dina daal di neex ci moom ndax un mois ko dese woon nee na moom daal mu seetu seetoom laata muy ñibbi soxna sa deuxième femme bi feebar dèjà moom mu ngi doon jooy ëmbub aawam ñaareel bi feebar diggante fi muy waajee ñibbee nag soxna si ne ko moom dafa ëmb mbir mi nag commencé nekk daal benn affaire boo xam te ne dafay travailler bopp bi mu ne man maa ngi fi ñëw pour noppalu yaakaaroon sama aw bi dafa ëmb il faut ma takk ñaareel ñaareel bi ëmb na nee na mu jàpp ne nag loolu ndogal yàlla la mu daal di ñibbi mais xam nga bu la yàlla mayee seetara nga yokk nu la neex ngay ñëwee nu la neex ngay demee nee nag moom daal mu dem ñibbi ñu teg ci quelques mois aw bi am doom ñaareel bi am doom ñu bëtal leen ñoom ñaar ñëpp ñu ngénteendoo nee na nag ñu nekkaat ci ba xale yi commencé dëgër daanaka saa xale yi am nañu un an quelque moom ñëwul woon senegal un an quelque laa wax ñëwul senegal yàlla dogal nag moom mu ñëwaat ñaari faay may may ñu dara ku nekk di concours ku nekk di concours maa mën lii maa mënee fii xam nga jigéen ñi rek ndeysaan nee nag moom daal ba un jour ndeke mi ngi vérifier li nga xamante ni moom moo di armoire awo bi ndeke gis na ci benn comprimé boo xam ne daal daf lay yokk ay ovules maanaam daf lay permettre ngay gaaw a jur nee nag mu ne déedéet lii kay xanaa mënta nekk kon sama jabar ji moom day concurrencé kon que gis nañ ñoom man am naa doole ku ci nekk day xool daal naka nga mën a juree ba ëllëg ci biir mën a am sama ndono nee na moom loolu la ko jàppee nee na tey moom pour wax mu dem néegu ñaareel bi. gis fa lu mel noonu ay garab yu nga xamante ni daal daf leen di yokk ovil moom nag mu ne xaaral lii jëmul kër ci semaine boobu mu ne day xool nan lay planifier ñaari soxna yëpp ëmmandoo <laughs> ma ni ndeysaan kii de xam naa ni moom li ko dal métti na waaye li ah, na sant yàlla ndax am na ñoo xamante ni dund nañ ba dee amuñu doom moom soxna si nga xamante ne nag moom moo ñaar bi daal di jël ëmb aw bi daal di jël ëmb nag ne moom léegi lii moom mënatu dara il faut il faut que mu mu bëri leen nii nag mu xool nag beneen ñetteel xam nga bële paase da doon xool pour maanaam comme que ñii ñu ngi jafte fii ñii di boot doom fii nee moom loolu daal loolu daal ko ab xale bu ndaw la bëgg fi mu takkee ñetteel daal nee na moom ba yaakaar ne moo ki nekk ba ñibbi ñetteel bu woo ko nekkoon moom dafa ëmb nag nee fa nekk nii ca Canada dañ ko wone ko sa kër ngi tas ndax ku ci nekk daal yaa ngi tam sa moroom dëmm yaa ngi naan ma dàq jur yaa ngi naan man la ñu bëgg moom waa ji rek bu doon xam na góor naka lay defee planification familiale daf koy def ndax nag moom nee na tàmm nee na moom damm na sonn na taay na ndax moom mënatul saa yu ñëwee fii Sénégal pour noppalu au lieu que mu noppalu dañ koy awante moom daal damm na sonn na dee taay na li mu bëgg daal moo di instant bi nañ ko dimbali ndax buñ ko dimbaliwul dina doy waar ndax nee na moom ñetteel bi mi ngi ci tànk am doom te xam ne ni bu ñëwaatee yeneen jabar itam duñ duñ ko may dara ñoom daal concours lañ lañ fi nekkee ndax dem na sax ba itam bëgg na def stratégie pour ku nekk mu mu ber la sa këru bopp waaye nee na yooyu yëpp xam ne daal du stratégie ndax comme que ñoom ñett ñëpp ñoom ñoo bokk waaye yenn saa yi tamit saa su nekk dañuy reyante moom nag nee na ngeen dimbali ko nee sax bëgg na dem bay takk ñeenteel waaye xam na ne que itam bu takkee ñeenteel dinañ ko dugal ci genre yi nii maanaam xëccoo jur concours jur loolu nag la fi nekkee instant bi nee daal moom ngeen dimbali ko ndax xam na ni instant bii daal moom sonn na instant bii xam na ni dee instant bi xam na ni taayi na solution bi nag moo di ba day toog Sénégal eh, maanaam mbaxam day toog Canada ay ati at bañ a ñëwaat te bu ñëwaatee itam mu xool nu muy def pour daal bañ a jurati yenn jur ndax nee na instant bi moom macha allah moo ngi ci fukki doom fukki doom yoo xamante ni daal moom moo leen jur diggante aw ba ñaareel ba ñette ñetteel bi bu leen boolee kaar allah ndax moom moo ko wax. moom daal nee na léegi si situation bi daal moo di ba xam day continuer di ñëw wala daal bu ñëwee ni muy def ndax nag moom sonn na lool te bu ngeen ko dimbaliwul nag dina doy waar bu ngeen ko di dimbaliwul daal dina dina doy waar lool te instant bi xamul fan la jëm te moom jabar yi daal xuloo lañ fi nekkee boo kii eh, ku nekk daal naan sa morom maa ay maa mun jur maa ay man lañu bëgg te neen nag moom soxna yi li ñu li li moo di dañuy concours ku nekk naan ah comme que diw jur moom moom dañ koo bëgg ñoom daal nee nañ soxna yi daal ci concurrence boobu lañ nekk léegi nag moom instant bii nee na saa mu takk jabar tubaab moo ko gënal muy ñëwaat Sénégal encore ñu koy xëccoo di ko di ko di ko di ko sonal te xam na ni moom am na am na alal te xam na nag moom li nekk ci ginnaaw yëpp nag mooy fexe daal ba xëccoo ba ñoom ñëpp ñu mën a am moo di ci ndonom loolu instant bi daal. loolu moo leen tax a jóg ñoom ñii nii kon nag na ngeen xam ne que moom waa ji instant bi conseil la bëgg ngeen dimbali ko ci daal ndax moom sonn na xam ne ni coonoom nag leen ret moo ko yóbbee moo di ay soxna yu nga xamante ni dañuy def concours ku nekk naan sa morom maa dàq jur ku nekk naan sa morom man lañu bëgg ndax buñ ma bëggul woon duma am doom loolu daal instant bi moo nekk daal lu nga xamante ni waa ji mu ngi koy dund waral nag mu bëgg yéen itam yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi koy déglu ngeen teg ko ci yoon ndax nag instant bii daal xam na ni moom moodu moodu la yenn saay sax bu demee ba day toog xelam dem ci ay raqam yu nga xamante ne ñu ngi Sénégal ndax moom ñaari wajur yëpp génn nañ àdduna waaye itam bëggul foofu rek ci problème mu jigéen ñi nga xamante ne tout le temps ñoom ñoo koy dimbali léegi nag solution bàngoog bu dee moom da koy digal muy dellu si jaamu yàlla ndax doom nag kado la wax dëgg fa yàlla ndax yàlla moom bu ngeen xoolee li mu wax moo di am na ñoo xamante ni maa leen bind may leen ñuy sëy waaye may na leen ay doom yu góor kese ñii ma may leen ay doomu jigéen kese ñii ma may leen ay doomu góor jigéen ñii ma may ay doomu jigéen ñii tamit duñu am dara kon tamit sëy li Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum wax naan doom moom bonus la ci waaye ñu ko sante yàlla rek waaye moom daal jamono bi lenn rek la bëgg moo di ngeen dimbali ko ci li nga xamante ni moom moo di seenu ndimbal ba mu mën a jógaat kon mbokk yi bëgg nañ loolu ci yéen ñi ngeen di ànd ak ñoom su nekk am mbégte kontaan te di leen jox di dégg suba jaam jàmm incha allah jërë ngeen jëf ci ànd bi.